الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasalama taslima mbokki jullit yi tey ñu ñëwaatoon di fàttali suñu bopp waaye di leen fàttali lenn loo xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere te ñàkk gi nga ko ñàkk bàyyi andi na ay tasaaroo ak i féewaloo ci diggante way dencante yi waaye andi it ay feebar yoo xamee ne yu mel ni ndigg yu metti oom yu metti wala ay yax yu metti rawatina jàmbat biir buy metti wala bopp te loolu moom mooy fanaanoo janaba te jogulo sangu wala nga daldi japp ki yalla yoni won ci ñun dafa wax ni kep ko xamé ne joté na ak soxnam ba paré mu ne buñu noppalo ni jog ñom ñaar dem sangu wala bu japp ni wul ñu japp dora tudat lolu abdallah ibn ibnu omar anhuma moo ñu ko netali mu ne yonent bi salaay salaam dafa waxoon baayam ne ko tawadda waxsil zakaraka suma nam mu ne ko boo jotatee ak sa soxna yi ba pare raxasal sa awra jàpp soo paree nag nga dem tëddi nelaw yi kon nga gis ne mbir mu am importance la boo xamee ne jarul sàggane ndax suñ ndey Aïcha radiyallahu anha wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wo xamé né dafa am janaba te bëgg nelaw day dem raxas awram jappu te ñëw tedd iza arada an yanaama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda li salati kon mbokk yi ñu ngi leen koy denk di koy denk suñ bop nit ko xamé né joté na ak soxnam ba pare suñ nopolo ab diit nañ daal di jóg jappu jàpp boobu kenn mënu ci julli waaye jàpp la boo xamee ni dafa lay soril seytaane ba du xaj ci sa diggante ak sa njaboot jàpp la boo xamee ni daf lay protégé ci yenn feebar yi nga xamee ni moom feebar yu bon la yoo xamee ni fanaanoo ak janaba da koy daal di waral boo paree nag nga daal di tëdd boo yeewoo nag ca fajar ga nga daal di sangu li nga xamee mooy sangu janaba pare nag joxe waxtu julli yàlla yàlla def si ñun dégg ak topp def ko ci yéen. yàlla won ñu dëgg bañ xamne moy mooy dëgg ñu top ko mu won ñu ay caaxaan bañ xamne ne lañu won ku ginnaw wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh